waay dañoo mun a sot mhm. sot gi mooy dañoo tiit nag ñoo yey tiit xam nga doo demee nga dajale Macky Sall. Mhm. dajale Amadou Ba. dajale ba Barthélémy Diaz mhm. ñooy coalition yëpp ñu dajaloo ne léegi ñun kat bi nañ jox dakaar mais sama waay foo leen gañe doo jëlee Aliou yi Plateau nga jël Bamba Fall Médina jël Jean euh, Grand jël Dieye euh, Gueule Tapée cela dire que ñëpp boolantoo ne ñoom kenn la. Mhm. jël ñoom ah, ki les députés de Ngouda nga jël ko di côté de mhm. Moustar jël Babacar mhm. jël waa Sididi léegi ñoom fu ñuy ma mënuñ gagné fenn mais li ni dara ñaari nit ak sax daanu mais def dalay les médiocre yi parce que yàlla booy doxalee noonu mooy waral sa bët yi da koy gëmm doo gis gis nga fi ne nii ces discours incendiaire mhm. day dóor rek ak saaga cela veut dire il est en mauvaise posture cela veut dire que ses positions ne lui confortent même pas mhm. xam ni il est dans des mauvaises positions donc dans ce cas xam ni il perd les élections mooy waral mu bëgg indi ay finna sax ba élection ñu reporté ko mais c'était trop tard mhm. fi des nii à xoolal añaam lañ fa indi xalé yi mhm. université ngi ni xalé ya bi may ñew lek ken parce que y a plus de 200 étudiants yo xamni ñi gi gañu di réclamer que leur bourse ñi leen sànni ay lacrymogène lu nekk mhm. ñu def leen ko donc dekk bi dafa soxla dal parce que dañoo joggé situation yu metti moy c'est pourquoi j'appelle population sénégalaise que ku daw dal dal ci xal dese nga benen tëbin benen mhm. bi moy l'élection législative pour sauver ce pays motax tay Sall a aduna bi Sall jël sa responsabilité mhm. pour diriger une liste xam nga pour la première fois dans l'histoire du Sénégal mais aduna mo tollu fofu, mhm. cause pour laquelle du même tay Trump mi nga feulé États-Unis jël ñëwaat jëlaat pouvoir bi parce que xam na ni day dox nak da ngay dañuy dox ànd ak c'est pourquoi le retour de Macky Sall pour jël ses responsabilités avec ou les dignes fils de ce pays mais tous les traîtres nag dañuy quitter la navette duy daano dañuy daano Ousmane Sonko mi nga xamni il est arrogant ku nek mu menacer la foog ni moom mooy